nga wax ni nañ ci keccet politique te fexe ñu def unité autour de cette euh, mm. de cette problématique ñu fexe nuñ ko régler bañ a joxoñ kenn te wax nga nit ñi fi soog a toog six mois lañ defagum euh, te six mois mënoo cee xayma euh, nit joxe exemple réew yi nga xam ne dañoo dem yëpp dañuy ràññatle unité nationale ak lu dul moom bi nga koy wax booba danga jàpp ni am na taxawaay yoo nemmeeku ci ñenn ci politique yi nekk ci kujje gi Euh, ni ñuy traité cette question uute naag la ñuy xaar walla non bi ma koy wax. Hmm. maa ngi leen di nuyu déjà. maa ngi leen di nuyu euh, suba teel bi. Hmm. Euh, remercier la aussi ci appel bi ma ma participer seen débat bi. waay ñu nuyu ñëpp ñu toog ci bi nuyu seen téléspectateur. bëggoon baat bi tuuti rek ñu dégg la maa ngi maa ngi leen di nuyu bu baax. ñu ngi lay nekk turam ak santam nuyu seen téléspectatrices yi seen téléspectateurs hmm. bon bu ñu profité ci occasion encore une fois pour jaale ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan euh, ñaan leen yàlla yàlla xare leen àjjana en fait en réalité li ma wax man topp euh, ay nit wax man li ma wax mooy li ma doon wax démb ak barki démb démb dañ fi nekkoon au pouvoir di gérer man ma nekk ministre de la jeunesse lu amee ñëpp jóg naan jóg Macky Sall la ñuy liggéeyuñu su ma waxee ci politique sax ñu ne Pape Malick au mu dem li lijjanti problème immigration clandestine mu ngi nekk di wax ci politique di dresser les gens contre les gens il a de cela un an ginnaaw man j'avais juste fait six mois à la tête du ministère de la jeunesse mais jamono du daaw ci heure bi six mois laa defoon ministère de la jeunesse à peu près mais jamono boobu wax rek ñu ne Pape Malick moo la jëm moo tax xale yaa ngi def ma gis ne loolu amul benn njëriñ man ma génnoon ci jamono boobu mois de novembre ci daaw ma génn ma ne mbir mi kenn waru ko politiser c' est un drame drame nag kenn waru ci profito di nekk ay croque mort hmm. loolu rafetul parce que soo taxawee nga ne mag Sall moo lajj soo taxawee nga ne dañoo jaay suñu géej soo taxawee nga ne gouvernement bi liggéeyu yaa ngi jox xale yi argument pour ñu génn soo waxee nga ne espoir amul ci réew mi dëgg-dëgg yaa ngi jox xale yi argument bu ñu demee même su fekkee ne sax dina la permettre nga am benn voix wala nga permettre yow su fekkee da nga nekk osant euh, mu may la euh, population bi gën a mere politiciens yi mais par ricochet yaa ngi contribuer à ce que xale yi dem loolu laa yàgg wax donc tey su ma nekkee opposition daj bu nekk man sama bopp ma nekkoon au pouvoir may wax loo xam ne fu mu dem nañ sax fii ñu may ci naan man sama bopp Pape Malick Ndour man maay organiser ay voyage pour xale yi dem dégg nañ ko fi waay ah, loolu yëpp su amee te mu leer ma ne yëpp ay fen la dara nekku ci dëgg tey nag su ma nekkee opposition du ma tax bañ a wax dëgg bi affaire immigration irrégulière bi la koy gën a yokk problème mu politiciens yi nekk ci ginnaaw di wax loolu moo koy yokk loolu laa doon wax démb tey aussi loolu laay wax. Hmm. donc man défendre ma benn régime en place. li may wax mooy dëgg bi nga xam ne moom moo fi nekk te dama ko doon wax te tey dama koy waxaat aussi. oui man dama jàpp ne àdduna dafa am ay ay yoo xam ne dafa war a am consensus national démb c'était le 11 septembre. dafa doon seetaan France 24 après un débat entre Kamala Harris ak Donald Trump dama gis ñoom ñaar dañoo xam nga 11 septembre moo nekk lan loo xam ne waroon na mën a diviser Amérique ndax 11 septembre waroon nañ mën taxaw naan waaw George Bush bu mu ñëwee dafa doon provoqué le monde dafa doon provoqué islamiste loolu moo andi 11 septembre tey démocrates yi wax ne loolu moo andi 11 septembre mu nekk werante déedéet ñoom dañoo teg def ne ñun kenn mooy suñu adversaire mooy euh, islamiste yi ñoom ñëpp su xewee symboliquement ñu woon lii ñun suñu suñu 11 septembre ñun donc lii politique war ko laal dañu war a taxaw ñun ñëpp d' accord ne lii moo ko waral tey soo xoolee euh, man su ma taxawee ne état bi la damaa a démb nekk tamit su ñu taxawee ne euh, yi ñoom ñoo war a yar seen doom yi non non non politiciens ñoo war a instrumentaliser ñoom aussi dañu contradictoire parce que ñoom waxuñu woon loolu démb hmm. donc jot na nag tey ñu poser débat bi sérieusement honnêtement wax ne question bi quand sensible na sensible boo xam ne dañ ko war a ñàkk politiser te li may wax nag xam fu ma ko bu may doon wax ne ñëpp nañ nekk damaa dem ma fekkee ma tiim ma Pape sama poste ministre moom mayoon loolu ma tiim ay xale yoo xam ne dama leen gis ñu génne leen ci ci ci ci ci géej bi c'était effroyable ma gis nu ñu leen enveloppé ma xool leen nii gis leen yàlla ma la baal dama si niñ mel ma gis ko mu nekk lu metti ma gis ay xale yoo xam ne dañoo réccu dem biñ demoon de la même manière aussi ma gis ay xale yoo xam ne dañu ne ba léegi malgré li ñuy gis nu mu garaaw garaaw garaaw dañuy demaat c'est là ne lii c'est terrible donc tey du ma nekk nag opposition quand lu wax rek wala bëgg mu neex wala peut être bëgg ay voix wala bëgg yàqal ay nit may wax beneen bi aussi wax naa ko quand même six mois ak loo mënti wax c' est largement insuffisant pour pouvoir régler un problème boo xam ne Abdoulaye Wade daf ko fi fekk ba dem Macky fekk ko fi bàyyi ko fi.

nit ñi naan waaw parents yi dégg naa benn euh, politique bu bokk si boo xam ne si Pastef la bokk muy taxaw ne waaw parents yi et cetera lan moo tax moom waxuloon parents yi démb donc man du ma ko dugalee ci ay termes magistère yooyu lii c'est sensible c'est sérieux ça transcende les actions publiques yaa ngi dégg daf ko transcender cest à parfois nit koo xam ne nañu wax ne dëgg sa sa nga teggi natt ñaari million jël sa ñeent doom dugal leen ci loolu loolu lan la ci magistère mun lan la ci politique publique man. waaye du loolu rek mais ah, du loolu rek aussi ah Pape Malick du loolu rek de ñoo xamante ne c'est des questions économiques yoo xam dañ koy dund. waaw loolu défaillance politique publique xam ne impacté euh, la question de la jeunesse ko gérer. mais jaamu su amee dal am ba xale xam ne dañu war a rek man j'ai ma responsabilité simi sama mbubu opposant sol sama mbubu patriote sol sama mbubu citoyen mhm. mais bu ñu taxaw di wut pique misère mhm. bu ñu taxaw di wut pique misère yaa ngi dégg du nguur gee du nguur gii nous sommes tous coupables nous sommes tous responsables mhm. attention journaliste bi nga xam ne tey yaa ngi ni wax na gis naa yor yor publié ko pour la première fois li mu ni waxoon naa ko daaw est-ce yor yor publié woon na ko daaw tey ngi nii sans limite yéen a invité yéen rek yéen téléphone pour ma wax ci biir bi hmm. parce que au moment où yéen a may woo parce que yéen xam ngeen ne li may peut-être quelque part arrangé leen am nañ journaliste yoo xam ne loolu arrangé wu leen moo tax duñu ma woo hmm. donc moo tax moom sama appel bi ma waxoon daaw mu ngi dugg ci vidéo ba ngeen xool ko soo neexee ma envoyé la vidéo nga teg ko hmm. dama ne il faut yi dañoo war a dégg mais am na koo xam ne mu ngi ci plateau non non non doo xaw ma ne da ngeen defal waaw man su ma wax da ngeen defal waaw da ngeen may may yéen a ma woo téléphone voilà da ngeen may may ma wax man dafa am xuloo ma jàmm moo am fii war a am ndax tey lii sama sens yi voilà mais mais ma man xulóowu ma werante wu ma a ma woo téléphone parce que man maa def sama poste ngeen xool poste bi woo pour ma expliquer li mbir mi nañ si dem ak jàmm ak salaam dama la wax ne la au moment où a may woo may wax ba xam ne peut-être du ñàkk mu ngi dalal parce que yéen jàpp ngeen ne en tant que patriote peut-être wala en tant que citoyen sénégalais war ngeen woote si luy jàmm mais au même moment am na beneen journaliste boo xam ne mu def laa li ma solo lii day dalal au contraire foofu du question bi sax pas mal. voilà non mais loolu moo nekk dëgg aussi dëgg bi koy wax man xam nga man sama affaire parce que man suñu liggéey xam nañu en tant que foofu la may dañ la interpellé ci lii rek nga wax ci mais ñun en mm-hmm. tant que taskatu xibaar ku ci ne xam nga luy sa responsabilité ak li ngay def. li ñu def nii lañ daan def démb tey moom la ñuy def suba moom la ñuy defaat waaw moo def comme yéen li ngeen di def waaye nag na ko def si jamono boo xam ne. Hmm. ah tout le temps quelque fois ñi si nekk da koy def. loolu mooy euh, euh, obligation bi nga xam ne moom la ñu am. d' accord léegi Pape bu loolu weesoo waaye ci may dem yow yaa ngi ci réew mi mbirum sortie de territoire ak yooyu. dalu la yow du fa ma woowee téléphone na ma woowee whatsapp wala lan sama téléphone nga ma woowee noonu. waaw ngi fii nekk montagne bu ñu daaj. Ah. yaa ngi dégg moom ma dikku parce que defuma fi may xeebe tout ce que j'ai je assumé et je l'assume hmm. yaa ngi dégg voilà fi may daanaree nag mooy président bi dégg naa ko mu ne affaire bi doole yoole mooy régler problème bi man pour man yoole réglewul problème parce que xam nga xale bu jóg yaayam teggi nat hmm. mu ngi koñ mu jaral ko mu naan day dem kooku soo koy yoolee ay reyante lay andi après la yoole sa al reyante dans les quartiers hmm. donc xalaat boobu nekkul xalaat bu baax lu mm. ñu beneen xalaat ñoom pour gën a régler problème bi waaye nag li ci am solo sénégalais nañu xam ne nañu ñëpp dañu a àndandoo dalal mbir mi wane ne état mënuñu ko indexé comme bouc émissaire yaa ngi dégg suñu ko indexé état ne bouc émissaire la dinañu indexé opposant bi nga xam ne dafa taxaw naan état mooy responsable di motiver xale yi pour ñu dem suñ ko indexé dinañu indexé journaliste bi nga xam ne dafa taxaw di wax ne politique publique Pape Malick leneen ñu ngi la ciy interpellé mooy cas Abdoulaye Touré mi nga xam te ne nga récemment ni euh, euh, déposé na plainte suñ ko waxee yow lañ ci indexé oui waaw da nga ma da ci affaire yu sérieux muy immigration irrégulière man du ma wax ci loo xam ne c'est pas sérieux li ma ci waxaat c'est sérieux le cas le cas Pape Abdoulaye Touré c'est sérieux pour nous le mu ñëw li may wax c'est très simple ah kooku ngeen wax man musuma ko xam musuma ko dégg. Hmm. bu ma koy dégg mooy jamono bu may dégg. mais cité nommément par Abdoulaye Touré. yàlla ñu tim ci weeru koor ci ara hmm. yàlla ñu tim ci ci ci um, euh, la ñu nekk ci weeru unité hmm. bi. xam na li may wax te man loolu moo ma intéressé. voilà maa ngi leen di nuyu nag maa ngi leen di gërëm bu baax. xanaa di nga wax si président ci vingt bi xamul xamul waroon a annoncé état wu réew mi ni mu ko fekkee réew moo xamante ne ci seen magistère lu bëree yàqu ñu war a jublu ci reddition des comptes mooy da nga ma da nga ma da ma woo j'ai accepté de vous parler parce que la sensibilité de la situation moo tax ma wax ah. sincèrement loolu moo ma gënoon intérêt ah. si appel bi nga ma appel maa ngi leen si gërëm maa ngi leen ci sant di ñaaxaat encore une fois xale yi hmm. bu ñu dem bu leen kenn bu ñu topp kenn ku leen di wax ne dañoo jaay suñu géej bu leen bu topp kenn ku leen di wax ne li fi ne baaxul bu ñu topp kenn ku leen ne eh, espoir amul ci réew mi yaa ngi hmm. dégg président Macky Sall li mu fi def hmm. nekk nee nañu dinañ ko gën a dinañ ko gën baaxal pour mu gën a baax ñu gën a am liggéey nañu am yaakaar ci loolu fii ak ñaari at nag ñetti at dinañu apprécier bu baax te même boobaa suñ ko apprécier mu nekk lu négatif mm. quelle que soit la situation géej mënul nekk solide mm. voilà mon opinion voilà ma position. d'accord merci beaucoup su fekkee j'ai choqué les et les autres. merci beaucoup ñu ngi lay ministre de la jeunesse. Pape Malick euh, Ndour euh, au moins comme moom nangu naa euh, addu.